lu toll ci juróom benn téeméeri nit yu manqué benn la ñu jot a consulter seeni ku yaram may leen ay garab ci journée de consultation médical gratuite bi nga xam ne association santé éducation emploi wér jàng ak liggéey ci njiital sëriñ maam Cheikh Anta Mbacke Sidi moom la doon amal ci Daaru Salaam ci samedi bi dëppoo nag le 11 juin 2022 ci poste de santé bi jublu gi di taxawu mbooleem askan yi nga xam ne ñooy yeewoo ci gox bi te yittewoo am paj te seen loxo jotul seen ginnaaw ñu mën leen ko yombal. toll am nañ problème problème bi li li bi leen si woowee ñëpp dañ see kontaan ndax xam am ni Sénégal moom boo xoolee fi ne ñëpp problème bi na am mooy problème bu faj ak wér nii nag li tax ñu organiser ko dañoo xam ne fii ñu nekk quartier boo xam ne fii ñu wër lépp ñu néew doole la ni néew néew gi néew doole nag moo tax ñu organisé ko a daan woo ñëpp ñu may leen ay faj leen gratuitement may leen ay garab ñu aj suñ daara yi daal leen jox ay nimbal jox leen ay ceeb ay diwlin ak lépp aju si ak si daara ji rek loolu moo tax ñu organisé ko wàllum santé lu jafe la lu doy la même état yi sax réussir ñu donc il faut ñu def ba ñëpp dugal ci seen loxo kon moom dafa jóg pour dugal loxoom ci santé dugal loxoom ci hôpital bi dugal loxoom ci njàmbatu associ euh, euh, euh, population bi seen wàllu wér-gu-yaram loolu moo tax tey waa Daaru Salaam yëpp mobilise sa ñëw ànd ak moom ak comité d'organisation bi ak bàjjanu gox yi ak ASC yi ak ñëpp ak sëñ ma kilifa yi nga xam ne doomi sëriñ su baax su fi nekk lañ di waa dëkk bi ñoom ñëpp ñëw ànd ak ci kii bi mbooloo mi ak ni ñu wuysee ci journée de consultation médicale gratuite bi di wane ne yittewoo nañu lool paj ji màggaayu dëkk bi nga xam ne moom moo di Daaru Salaam àgg na ci ñu war fee taxawal centre de santé wala hôpital bu mag. xam nga dëkk bu toll daa sax war na am centre minimum centre na ko a am ñi moom nit ñi moom boo xoolee nit ñëwee da nga si ni kon am nañ problème faju faj am nañ problème ndax boo wootee rek ñëpp ñëpp ay fajuru ñëw ñëpp ñëpp ñëpp am ñoo xam 6 heures du matin ba tey ñu ngi fi. léeg-léeg dañuy ñu ne ñu dafa am ordonnance wala dafa bëgg a faju ñun koy ñoo koy dimbali orienté ko hôpital la sa ñu def ko ngir su lépp suñu doolee bopp rek lañ ko defee médecins ci ay spécialité yu wuute ay généraliste pédiatre ophtalmologue dentiste gynécologue ak yeneeni spécialité ñoom ñëpp ñëwoon nañ muy lëkkaloo goo xam ne association bi lëkkaloo na ko Touba assistance médical ak ONG Marie Stop dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax ndax médecin euh, liggéey mooy nekk au service de la population te nu mu gën a ci population bi rek gën a gën a baax donc bu amee opportunité di faj nit ñi gratuitement di leen may garab je pense que loolu sant yàlla la dañ koy rafetlu tamit bu baax a baax. moo tax bañ ci woowee dañ cee sawar lool liggéey bi aussi euh, ñu ngi koy ànd ak association bu ñuy wax Touba assistance médicale. Touba assistance médicale day regrouper ay médecins pharmaciens dentistes nga xamante ne ñoom dañuy œuvrer ci ci social fépp fu leen waaye woo pour dimbali nit ñi ñoom ils sont partants. ñi nga xam ne ñoo doon amal paj gi nemmeeku ne gox yi dafa bëri lool li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum tension ak jabet docteur Diop di ñaaxaat askan wi. tension dafa bëri si sunu zone yi ndax ku ne xam na ni fii ni ñuy jëfandikoo ci xorom dafa bëri te OMS mi ngi recommandé nit ku ne 5 xorom nga war a lekk par jour te dañuy gis kuy lekk 30 grammes bu xorom presque 6 fois la normale donc de ce fait nit kooku day exposé wu ci tension ñam bi aussi day bëri suukar de ce fait kooku tamit day exposé wu si diabète. donc ñu ngi appelé population di leen woote ci wàññi consommation xorom bi ak consommation suukar bi. mbooleem ñi nga xam ne ñëwoon nañ ci journée de consultation médicale gratuite bi moo xam sëriñu daara yi la doon taxaw seen ndongo yi ñu faj leen góor jigéen mag ak ndaw ak mbooleem kilifa yi fa ñëw ñoom ñëpp rafetlu nañ jëf ji nga xam ne association santé éducation emploi amal nañ ko ñaanal bu baax sëriñ maam Cheikh Anta Mbacké Sidi mi nga xam ne mooy président bi jëf ji mu koy gën a mën. xam ne maanaam liggéey la boo xam ni kenn ku ne yaa ngi jàpp fenn waaye métier yi gën ci métier mooy alxuraan jàng alxuraan ak ak ak faj kon na ki lay faj maanaam fexe ba ngay faju di lay jàppale kooku dañ koy dugalee dañ koy dugal ci ngën ci métier yi suñu change bi waxoon na suñu change bi nee woon na li gën ci métier yi ginnaaw alxuraan jàng alxuraan karim te yonte moo jàngale loolu wàllu faj ak fexe ba ni ñuy faju kon moo dox kon période bi mu ko def maa ama ñoo xam tey jii yitte woo nañ maanaam faju te mënuñu woon a faju na doo nga yoo xam te ji seen waajur mu ñu leen yóbbu hôpital am ñoo xam seen waajur mu leen jëndal boo xoolee ordonnance waaye si maam Cheikh fexe maam ba jàppan jàppanal mbir mi doo ngay faju faju boo xam ne maam walu ba ñi mu baree ci dong daara yi ak bëti mi su surtout wànneen donc mu ne initiative boo xam ne bi nii dafay tax ñi nga xam nañu ni amuñ possibilité pour jot si docteur yooyu ñu mën see jot parce da ngay ñëw daggoo ticket ñu xool li la war a xoolal bu ñu la war a xoolal defal analyse ñu defal la ko bu ñu war a defal rajo ñu defal la rajo parce que lépp am na fi ñoom docteur Gaye ñoo fi nekk ak ñeneen ak ñeneen. donc euh, di wax ne lii dafa nekk loo xam ne lii dafa war di sax Sénégal. di rafetlu itam initiative bii nga xam ne moom la ñu def pour mën a dimbali euh, la communauté ndax am na ci ay démunis yoo xam ne dañuy bëgg a faju ba pare du ñu am moyen kon nag bu fekkee ne lii indi nañ ko di ko def. dañuy jàppale population bi te lu rafet la te àddina moom sante moom day dafa nekk loo xam ne c'est primordial. man am naa juróom-ñaar fukki at waaye bët yi rek ma jaaxal bët yi daal moom bii dafa lëndëm te bii moom dafa defoon naa dal waaye téew ma ci gis waaye bii moom day jàpp rek. waaye maa ngi leen di ñaanal ci kàttan ak yàlla sëñ sëñ Mountakha yàlla na ngeen fa yàgg te wér te li ngeen di liggéey yàlla na barkeel nu nu yàgg ci njaboot gi ngeen yàgg seen ak njaboot yéen itam ak seen i waajur andi da ko da ko yooyu dara xam nga loolu moom bari na néewut luñ koy gis waaye nag ñoo ngi sant yàlla yàlla doon na leen a jàppale bu baax ba yàgg koo def te yàgg koo taxaw te kilifa yi yàgg koo taxaw bu baax barke Sëriñ Tuubaa barke maam saxam te de ñaanal seen liggéey yàlla def si barke ndax jamono ji metti ji ku ñëw na la xaar mu xoolal la soo yaram te doo fay dara boo demee ci hôpital da nga jóg cinq heures de daanaka fa ngay yenn su dee da ngay làmp sa poos boole ci ku la nakaay ma doo fay dara ko yow la dimbale kon ñoo leen sant di leen gërëm ku fi jóge yàlla nag am wér kenn bañ am jàngoro yéen seen liggéey yàlla def si barka jox ñu ci cër boo xam ne eh, indi na fi ay gynécologue indi na fi ay sage-femme indi na fi ay pédiatre surtout loolu muy xale yi di jigéen ñi loolu moo ñu ci gën a intéressé donte nag sant bi lépp ñu ñor kon ñu koy sant di ko ñaanal ndax daaw melutoon nii terrain ji nii mu mel nañuy ñaan yàlla bu dewee mu mu mu romb yëpp ndaxte gis nañ ne jigéen ñi nga xamante ni bëggoon nañoo gis gynécologue te mënuñoo fexe ba gis ko tey jii am nañ occasion ñi ngi leen di dugal kon ñi ngi ciy sant di leen gërëm. turu sëriñ Bassirou moom sëriñ Xaari Mbaw ba moo ma fi yebal di bokk ak liggéey bu rëy bii nga xam ni moom ngeen sumb di ko defal askan wi dafa yëf yi ngeen liggéey bii ngeen xam ne commencé ngeen ko di ko def. réenu ci moom rëy goo xam ne da ko fekk ci ay xat-xat ak yitte yu demee nii mu nekk waaye kon nee na mooy ñëwal boppam ndax xam na ni liggéey Serigne Touba rek ngeen di def ak seen maam maam Cheikh Anta loolu nag mi ngi koy bokk ak yéen di leen ñaanal suñu borom may leen ci ndam. kon nag nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal di leen xam na département bi moom lépp lu ci waay woote rek war na caa teg tànk mbaa ndawam ñëw ñu kon lii bi ngeen ko koy yëgal seen fay dafa war ñëw ànd ko ngeen bëgg jox tàkk rawatina mu bokk ak yéen Serigne Touba. lii nga xam ni ay di ñëpp dañ leen ca war a roy ndax lii eh, lu rëy lu am solo kon nag dañ leen di ñaanal yàlla mu yokkal seen taxawaay dëgëral dëgëral seen ba li ngeen bëgg ak ko ci barke Sëñ wàllum paj nekk loolu état la war mu koy taxawoo askan wi nga xam ne ñoo nekk ci biir réewam association bi nag jóg di def lu ni mel ci seeni moyen bopp su weesoo bis yi nga xam ne moom la ñuy amal di ci saytu wér yaramu askan wi di leen may ay garab ak ndimbal gi nga doole ji am na yéene taxawal hôpital bu mag fii ci Daaru Salaam ngir gën a yombal paj gi askan wi